2000 habitants parce que mi ngi ci 2000 habitants euh, li tax ñun ñu génne tey moo di depuis 2011 la ñu fi samp ay poteaux bañ ko fi sampee ba léegi donc poteaux yi matewul dëkk bi parce que am na ñaari gox yoo xamante ñu ngi ci biir dëkk bi gox yooyu kenn jëlu leen euh, muy benn gox bu ñuy wax càmbi ak jaaraw donc ñu ngi fii ci gox donc bañ ko fi sampee ba léegi non seulement niñ ko sampee baaxul mais également matewul dëkk bi yëpp ñu commencé woon installer kër yi bañu ñu kër yi kër yi feesul installation bi également euh, baaxul parce que ku dugg ci néeg yi boo gisee attaches yi ci ëpp yëpp bàyyi nag donc installation bi vraiment poto yi nga xam te ñoom la ñu samp ci mbedd bi ñu ngi maxe ñu ngi maxe donc 2014 ñoom bañ fi ñëwee donc euh, ñu ñëw fii c'est comme si ginnaaw suba la ñuy indil ay compteurs parce que ñoom dañoo ñëw fii profi euh, profité nit ñi yenn i yi ñi nga xam te ne peut-être 20 mille ya ñu dese woon mënoon nañu koo jëndee ceeb mënoon nañu koo def feneen ñoo dañoo sacrifier takk seen biir joxe 20 mille yooyu pour ñu mu mën a am compteur malheureusement bañ ko joxee ba léegi gisaatuñu leen ñoom it ñëwuñu jox ñu information donc looloo waroon ñu ne tey dañuy génn ñun ñu wanewu ñu nit ñu lancer message wax autorités yi pour que ñu nit ci ci Sénégal la ñu bokk parce que ñun ci biir dëkk bi am na ay fonctionnaires ñu ngi fay impôt donc c'est normal que ñoom it ñu jëleen en compte. bon voilà comme ni ma ko waxee sànq ci nasaraan jigéen ñi également ñoom it jafe-jafe yu metti la ñuy jànkonteel fii ci dëkk bi parce que jigéen bu fi soq sa dugub pour nga wallu ko il faut nga paas au minimum 300 nga dem Thiès booy ñëwaat dangay ngay paas 300 donc fii ak Thiès ça fait presque dix à 11 kilomètres plus la ngay fay pour ñu wolal la. wala nga jóge fii dem Sindia tu vas faire la même chose donc loolu jafe-jafe bu métti la ci ñoom ñu nit dañoo bëgg suñu yaay yi suñuy soxna yi ñoom it ñu wutal leen machine boo xamante ne moom la ñuy wolee seen dugub bu ñu sañoon loolu ñu defal leen donc village bi na insécurité. donc village bi insécurité totale. parce que bu ñu nee insécurité dafa dafa xaw a lëkkaloo ko ak euh, courant bi parce que ñàkk courant bi tax na ku fi yar say jur ñemewu génni au la de 21 heures. parce que boo génnee boo tasee ku la ku yor ngànnaay mën na la mën na la rey. te fii ñun ñëpp xam nañu Sénégal boo yoree arme te jaarale ko ci yoon mën nga ci am problème donc ce qui fait euh, de 21 heures nit ñi tëdd au delà de 21 euh, euh, heures donc ci la sàcc yi ñëw di di sàcc vraiment jur yi fi ne yàggul récemment am na parce que juróom benn xar yi ñu sàcc fii ci dëkk bi donc sàcc nañ fi également ay mbaam loolu loolu man man kenn nettilu ma ko man maa ci teg bët nañ fi juróomi mbaam yoo xam te nañ leen a sàcc ci biir dëkk bi donc pour wane leen insécurité bi dafa lié ak euh, problème courant bi mhm. donc sàcc bi mu ngi fi donc ñàkk courant bi également moom moo waral loolu donc bi may daaneele mooy ci wàllu njàng mi parce que njàng mi ku ne développement dëkk da nga naan njàng. parce que bi ñu ngi ko créé 1962 donc depuis 62 école bi formé na pas mal de cadres parce que am na ñu mu formé ñun ñëpp fii la ñu jàngee produit école bi la ñu donc euh, table banc yi nga xamante ne ñoom ñoom la ñu fi defoon depuis 1962 ñoom ñoo fa ne ba tey. donc table yooyu ñoo fa ne ba tey kenn changé wu leen kenn mosu leen a changé ñu nit ñu bëggoon bu fekkente ne euh, autorité yi nga xam te ñoom ñoo fi ne à savoir boobu euh, compétence transférée la comme ni ko sama naataango bi waxee également donc ñu bëgg ñoom it ñu jàppale ñu pour que table banc yi vraiment ñun ñu defal mais également ñun it bëgg nañu parce que suñuy xale yi dañuy def ay kilomètres pour dem jàng ci benn collège donc dama dama ko fàtte wax ci nasaraan mais loolu également dafa nekk loo xam ne du ñu metti la parce que souvent au collège xale yi dañuy jàng di def journée continue ay 14 heures la ñuy waaj xale bu ndaw bu buy dem di jàng presque war a def marche aller retour 7 kilomètres ci benn collège bu wàccee 14 heures amul ku muy àndal donc ça pose problème donc loolu bëggoon nañu te te biir dëkk bi fii am na ñaari école élémentaire loolu dama leen koy wax am na fi ñaari école élémentaire y' a aussi des villages qui sont proches de ce village yoo xam te ne ñoom it bu ñu amoon collège de proximité ñoom ñu ñëw jàngee fii mooy gën a jege ci ñoom donc y' a euh, Thiewo ak Birbira donc ñoom ñoo ñu gën a jege te euh, dëkk yooyu yëpp bu ci nekk am na école ak ñaari école yi nekk Kisaan élémentaire yi son ce qui fait que bu ñu leen boole woon ñun mën nañu am collège de proximité ñun it bëggoon nañu vraiment. loolu ñun ñu jàppaleñ ci pour que loolu mën a taxaw donc. mooy ñun amuñu machine. machine wol. machine wolukaay ak machine soqkaay ñun bu ñuy woli dañuy dem ba ceew wala ñu yónnee Cees suñu woli wala ñoo ñëw day yàgg loolu weesoo suñu dispensaire bi tam amul garab amuñu amuñu kii oto bi nga xamante ne dinañu yóbbu toujours ambulance mu ñuy war a yóbbu ku fi matu guddi dañuy sonn te loolu warul mën a nekk. ndax ñun ay AS lañ ci dëkk bi dañoo war a waaye dañoo sonn te ku fi ñëw dañuy nax jàll ñun ku fi ñëw dañ lañ sànni ay carte ñun deseetuñu leen dara ñun ñoo ñu deseel ñun ku fi ñëw liggéey yi dafa ñu dem liggéey bi bi dafa doy liggéey ku fi ñëw nax ñu jàll ñu sànni la suñu carte loolu nag moom dañ koo defatul parce que naxa bi dafa doy dañuy nax di jàll loolu dafa doy suñu dispensaire bi amul garab ñun amuñu fu ñu walloo amuñu marché te loolu dañ koo war a am dañoo war a am marché suñu doom yi tam bu ñuy jàng dañuy dox a dox bay bëgg a dee ñii dañuy jàngee uh, sa sange ñii di jàngee jas te loolu warul mën a nekk suñu doom yi bu dee dañuy taal ay sondeel di jàng loolu mënul mën a nekk Kura war na fee am lépp war na fee am. a jàpp di liggéey dañuy dem ay Thiès di liggéey di dem ay Dakar di liggéey te loolu warul mën a nekk biir dëkk bi war nañ fee mën a am loo xamante ne dañ ciy jàpp financement boo xam dañ ciy jàpp te loolu amuñu ko waaw jigéen ñi yem ci dëkk bi bañ a génn ci dëkk bi di dem waaw bañ ci màngaani bu courant amoon dinañ koy def suñu amee suñu marché dinañu liggéey suñu amee suñu machine wolu dinañ ci liggéey waaye amuñu machine wolu amuñu dara suñu ma suñu suñu wol yi day tardé chaque jour bala ñoo wol suñu cere yi guddi lañu kii soog suñuy gën yi di wol te loolu warul mën a nekk dañoo war a am ay machine am machine soqukaay ñun sonn nañu tàyyi nañu